Get it. Não eram passando. بسم الله الرحمن الرحيم Okay, dañuy sant yàlla subhaanahu wa si teewaay bi fii ndax dama dellu si sama gox siin la juddoo fi la dëkk kon ñëwaat fii dafay am toujours lu ma def ci na rawatina nag ma ñëw fii si ñaaxaar xam ne tam bokk na ci xolu siin euh, ñu fekk fii ay population yu am am jom ci walu liggéey yu di ngir jëriñ ci biir loolu ma ñëw tay ci toolu ay ndaw te loolu tam dafa am solo parce que ndaw ñi ñoo yor ëllëg c'est ça euh, ñom ñoo war euh, taxawu ëllëg réew ndaw yi am association bu tudd jam muy jàmm la bëgg la euh, ñuy liggéey lu ama am solo ci surtout

Euh, ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla yàlla mottali nawet bi si jàmm ñi nga xam ne ñooy béy ñu muurloo ko mu nekk njëriñu réew mi te buñ fi jógee tam ñu gën a ñaax ñëpp ci liggéey liggéey suuf parce que moom bokk na si li gën a yóbbu réew kanam donc bien sûr état bi dina nekk seen wet toujours pour encadrement pour protection des végétaux mooy DPV mais aussi pour euh, surtout équipement agricole ak aussi ñu taxaw leen ci campagne agricole yi campagne de commercialisation bu ñu demee ba nawet bi jeex donc maa ngi gërëm bu baax euh, association noo tudd di ci seen tour mooy gërëm Mame Birame vraiment nekk na ndaw yoo xam ne d'ailleurs gagné nañu prix yu bëree bëri ex euh, exemple la ci ndaw yëpp kon njoko njal